résultats euh, globaux surtout nag euh, yooyu lañu sax gën a euh, di xaar mm-hmm. jamono ji xafóor mm-hmm. ci mm-hmm. mbirum contrainte taw bi ak nawet bi non mais loolu yëpp war na lu ñu war a rafetlu la quand même que élection yu ñu ñu tenir ko à date échue je pense que xam nga démocratie dafa am ay exigences yu mu laaj cest que quelque que soient les conditions climatiques partout xam nga boo demee il faut que ñu arriver à figer dans le marbre l'agenda électoral et loolu c'est un des défis de notre démocratie euh, assemblée bi 30 juin la seen mandat jeex mënuñu woon envisager et ça on doit féliciter le gouvernement ñu tenir élection yi maintenant c'est vrai c'est la première fois bu ñu xoolee exceptionnellement dans l'histoire ñuy tenir élection au mois de juillet parce que période nawet la suñu agenda souvent février mars lañ doon def élection yi élection yi passé euh, ou même novembre ah mais élection yi euh, élection agenda bi moo ko indi mois de juin il fallait ñu tenir élection yi avant 31 juillet et je pense que pour la démocratie c'est mieux ñu def élection yi à date que yeneen euh, quelles que soient les conditions quelles que ah, soient les je conditions je pense que tous les démocrates et républicains dañu war a rafetlu le fait que élection yi tenir à date échue ñu jël ki ci ligne bi allo. Adama Adama. bu ñu ko déggul ñu jëlaat ko ci kanam quelle que soit les la situation. quelle que soit dama ne. xam nga revendication. ñëpp lañ hmm. bëggoon ñu tenir élection yi. xam nga opposition bi ba à la fin ñu ngi wax nañ pousse élection yi. mais ki jiite réew mi moom moo nekk garant. du bon fonctionnement des institutions te du bon fonctionnement des institutions mooy yi nga xam ne nii ay assemblée institutions électives lañ ñu leen di renouveler. Mhm. ñu jël Mamadou Diop. ci ci ligne bi allo je pense que ça c' est important. allo Mamadou Diop. waaw. ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. yaa ngi Fatick wala Mbour. Hmm. maa ngi nii pour le moment. d'accord euh, nan la résultat yi tëddee foofu bureau de vote yi euh, fermé nañ wala ñi ngi woy ci di voté ba tey. waaw ci fi ma nekk nii mooy euh, centre Omar Lène maa ngi ci bureau bureau témoin bi nga xam ne yi gën a rëy la ci biir département bi Mbour mën nañ ne ku fi gaj rek mën nga am chance chance ci mbir yi donc mën nañ ne fii fi mu nekk nii lépp li nga xam ne moom moo nekk bureau fermé na rek décompté sax bu pare te mën nañ jàpp fi daal tendance bi yeew yi moom jiitu ci fi nga xam ne mooy biir bureau bi gën a rëy ci yi nga xam ne ñoom ñoo gën a rëy ci euh, fi nga xam ne moo nekk ci euh, ci ci ci biir commune bu Mbour ndax fii kat mooy euh, école Omar Omar Gueye donc fii soo xoolee bureau numéro un dama lay jox rek visite tendance yi nga xam ne moom am ci kii bi donc foofu yeewi askan wi dafay am lu toll ci cent trente six ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar am fa quatre vingt quatorze ci bureau numéro deux bi nga gis Benno Bokk Yaakaar askan wi am fi quarante cent quarante ci bureau numéro six bi Benno Bokk Yaakaar moo ngi am 92 ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi am fi 132 ci bureau numéro 5 bi Benno Bokk Yaakaar moo ngi am 90 Yewwi Askan Wi am 135 ci bureau numéro 15 Benno Bokk Yaakaar moo ngi am 57 Yewwi Askan Wi am 123 ci bureau numéro 14 ye Benno Bokk Yaakaar moo ngi am 53 Yewwi Askan Wi am 125. donc loolu moom moo nekk tendance yi nga xam ne ci euh, centre témoin bi xam ne moo nekk ci biir commune bu Mbour te mu a jàpp ne bureau de yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, waa euh, benn bo waa benn bokk yaakaar dañ leen fee daan yeewi askan wi ñoom ñoo leen fi daan lu gën a yaatu sax ci li nga xam ne nag lu euh, bëri nag mën nañ jàpp ko ba ko woon parce jàpp nañ ne commune bu Mbour moom benn bokk yaakaar moom moo koy gañ gañ bu yaatoo yaatu waaye daal tendance yi ñu gis nii fi mu nekk nii mën nañ jàpp ne tendance yooyu bokkut ak li nga xam ne moom leen jural kii donc loolu la ñuy jàpp fii te am na yeneen balaa nga ñuy euh, balaa ngay quitté résultat wu Aar Sénégal ak euh, les serviteurs bokk gis-gis naka la tëddee ci ci centre boobu nga nekk. waaw fii euh, ñoom nag am nañ fii dinañ fi am nombre mais nombre bu bu bu bu lay doon su ma su ma xool yenn bureau de yi donc da ngay gis ne Aar Sénégal ak benn ak ñi nga xam ne ñooy ay serviteurs ñoom li ñuy am ci kii maanaam nombre daal. dafay euh, tuuti comme su ma xoolee ci bureau numéro 9 bi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bokk gis-gis cinq lañ fi am waa coalition naataange am fi trois euh, alternative euh, mooy Aar Sénégal am fi trois ñi nga xam ne ñoom nag ñooy waa bunt bi am fi un les serviteurs am fi huit ñi nga xam ne ñooy waa wàllu am fi am fi douze donc loolu ci bureau bi nga xam ne moom moo nekk bureau neuf bi la fii fi nga xam ne nag tamit su su waa fii am na bureau boo xam ne nee nañ ma affiché guñ sax mooy Euh, bureau bureautiste bi parce que nag fii affaire yi dafa euh, am ñoo xam dafa xaw a tardé tuuti ci ci li ñuy ci li ñuy liggéey donc euh, mën nañ jàpp nañ ñooñu affiché guñ mais daal Kumba mën nga jàpp ne fii ci centre bi pa daanaka ku ko gañ yow yaa gañ li nga xam ne moom moo nekk lu bëri ci ci affaire yi donc mën nañ jàpp daal que ne fii ci centre Omar Léna fi nga xam ne moo nekk ci école 3 mooy centre bi gën a bi yi gën a rëy foofu mën nañ jàpp ne Benno Bokk Yaakaar comme fii dañ ko feetaan waaye Yewwi Askan Wi ñoom ñoo leen jiitu ñi nga xam ne ci bureau numéro euh, euh, huit bi ma nekk nii gis trois la fi am naataange askan wi am fi neuf ñi nga xam ne ñooy waa Aar Sénégal am fi deux euh, ñi nga xam ne ñooy waa buntu bi zéro lañ fi am ñi nga xam ne ñooy serviteurs yi mu set la ñu am waa wallu am fi 17 donc loolu mooy ci bureau bi nga xam ne moo nekk bureau 8 fi fi nga xam ne nag mooy bureau euh, euh, bii xam ne moo nekk 9 bi euh, bokk gis-gis 3 la fi am naataange am fi 2 aar Sénégal am fi 4 li nga xam ne ñooy waa bunt bi am fi 1 coalition serviteur am fi 8 grande coalition wàllu am fi 19 te foofu nag 140 yi nga xam ne moom la yeewi am moom moo raw ki nga xam ne moom moo nekk benn bokk yaakaar bi am 84 donc foofu nga gis ne bureau boobu. noonu la noonu la tuddee beneen bureau bi nga xam ne itamit euh, ñoom affiché nañu euh, seen i résultats fii mën nañu gis ne mooy bureau numéro 10 fii bokk gis un la fi am naataange am fi 0 li nga xam ne ñooy waa alternative mooy aar Sénégal am fi 3 Benno Bokk Yaakaar 96 la fi am coalition Bunt bi am fi 3 les serviteurs 5 grande coalition Wallu am fi 8 li nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi am fi 133 donc soo ñëwee rek ci bu nga xam ne moo nekk. ci bureau numéro onze bi euh, bokk gis moo ngi am un naataange am un ñi nga xam ne ñooy euh, waa aar Sénégal am un euh, benn bokk yaakaar quatre vingt deux buntu bi am un les serviteurs am huit grande coalition wàllu am dix sept nga xam ne ñooy waa yeewi askan wi am cent trente et un donc loolu nga xam ne mooy tendance yi ci yeneen bureau yi tamit te mën nañ jàpp ne fii benn bureau rek la daanaka moo fi moom moo des ci ci affichage parce que bureau yu mag lay am na ci yoo xam ne ba léegi ñoo ngi décompté muy trois à quatre bureaux yoo xam ne ñoom ñoo décompté fii nga xam ne moo nekk ci école 3 te mu nekk euh, centre bi gën a rëy ndaxte fii kat beneen bureau bi nga xam ne affiché na mooy bureau numéro 14 foofu bokk gis-gis zéro la am euh, naataange am zéro euh, Aar Sénégal am un Bondé Bokk Yaakaar am 53 Bunt bi am un les serviteurs am huit ñi nga xam ne ñooy grande coalition wàllu waa Yewwi Askan Wi am cent vingt cinq donc pour le moment. est ce que Astou mën mënoo wax euh, mënoo wax ñoom comme heureusement on est dans les résultats c' est bien. Mm. mën nañuy globaliser ah. jël temps juste globaliser euh, centre de vote wala bureau de vote yi joxe doo tout à comme ni mu ko defee sax daanaka tout au début parce que euh, waaw jox nañu euh, ci centre témoin boobu nga xamante ni mooy école 3 ndax bokk na ci centre bu mooy centre sax d'ailleurs bi gën a mag foofu la ca Mbour li mu ñu xamal mooy foofu tendance bi li mu joxe mooy yeewi donc moom moo nekk